aca abu sifle a de aca combat so combat derby di suñu sini bangi ak jenis Sara mbogu mbappa dong bangi ngi mom moom jenis Djini nyuwon ñu woon gannaaw bangi suñu bag ñi mbogu dadi wi ndeysaan moom lañ jàkkaar Sara ak jenis Sara ak suñu bangi. Desan ndeysaan ñu tu. si yéey ba léegi daga amagul de Assane Djily Sarr ak sunu bag ñi Assane Djily Sakho ak Seny Bargny hey Djily Sakho am na ngemb Seny Bargny am na ngemb hey hey ku nekk am na ngemb de Seny ak Seny Seny ak Assane hey Seny Bargny daan na Assane Seny Bargny daan na Assane de.